nuyu sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma moom it di ko ziyaare bu baax di ko jox wàcc wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla sunu boroom kàttanal ko ba ay yéeneem yépp àgg di ko ñaanal sëriñ Bachiru moom sëriñ Xaadim Awa Ba moom it di sunu sëriñ di sunu xarit di ko ziyaara bu baax sëriñ aboo bi nga xam ne moo woote bis bi it ñu di ko siyaare waaye sëriñ aboo moom sëriñ Fallou si Dieye moom it di suñu sëriñ di nuyu monsieur le ministre noo ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal ci kàddu yi di nuyu bokk yi nga àndal yépp ñoo ngi leen Alaji noo ngi lay nuyu baax sëriñ Baara mi nu feggool ñoom it ñuy suñuy soppe nuyu sëriñ Abdul Ahad jaxate mii nu feggool ak mbooleem kilifa yu baax yi nga xam ne rek ñu ngi ci jataay bi yépp kenn ku nekk noo ngi lay nuyu ci jataay bi di sant yàlla mi nu may tawfiix ci jataay bi ñuy defal sëñ Abdullahi di ñaanal sëriñ Maodo Habib mi nga xam ne mooy xalifaam suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu mottali mbooleem ay naalam ak ay yéeneem waaye dolle ñaanal Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu dole ci moom ngërëmam leen nuyoom ci nuyoo njaboot gi Serigne Abdoulahi mbaki jotaay bii nag nuy waxtaane tey Serigne Abdoulahi borom dër bi tànn ci tomb bu am solo di ko waxtaane waaye jëmm ji ni waxtaane ci boppam mooy ku fees dell ak i ngëneel fees dell ak i maana la Sëriñ Tuubaa ñaanoon na yàlla na nga tàbbal ci biir sama kër ak ci samay loxo kuy yéwénal kuy jagal loolu da koy tekki rek ci fii àdduna ton bu ñu demee tey ba tànnaat delloo siwaat njabootu Sëriñ Tuubaa teg ko ci kanam àdduna mu gàtt aw fan ci zahir lool te gudd aw fan lool ndax fan wu gudd mooy jëf ju sax ju baax te sëñ Abdoulahi jëfam ju sax la ju baax la waaye laa wa koo xam ne bi nga feeñee jamono rek màndarga yi ci sëñ Tuubaa jëkk a wane doy na sëkk ni kii feeñ jamono am na lu mu làmboo waaye it sëriñ bi tàggatal ko boppam yàllal ko boppam mu nuru sëriñ bi lépp te sëriñ Touba nekk ki nga xam ne dafa ñëw ngir sauver humanité kon lu bàyyi ko ci moom woowa melo boobu doxin rek nga mën a am mu nekk koo xam ne daf daan digle loo xam ne àdduna gën na koo laaj atiu llaha wa atiu rasul walakin amalu dafa nekkoon shaaram te mooy symbole mooy topp leen yàlla topp yonent bi alayhi salaatu salaam te mooy jaamu yàlla te jaare ko ci lu yonent bi indi waaye nag na ngeen liggéey lu tax mooy liggéey dafay tax nit moom boppam waaye dafay tax nit dëgër ci mën a topp yàlla maam Cerno borom daaru daana wax ne ku dul liggéey du am dara ku dara du toog ku toogul du jaamu yàlla ku du yàlla dem àjjana Cheikh Issa jenn sëñ Tuubaa mas ko wax na ko Issa Dieng ba amoo taalibe bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko amee wàcc ko ku dul liggéey neexut a dimbale kon ñoom loolu lañ xamoon mooy jaamu yàlla waaye teg ca nag liggéey Cheikh Abdoulahi li jiitu ñaar fukki atam kiy taxawal ab dëkk fekk na la ko war ci wattu alxuraan ak xam-xami sharia yam war a xam yépp ba nam war a toppe boroomam mu xam ko door a sóobu nag ci wut ab dëkk dafa am boroom xam-xam bu mag bokk ci yoon wi muy sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daf daan wax ne doomi soxna bu sëñcut réer bu sëncut réer bu jàngul taq bu jàngul taq bu liggéeyut loof bu joxasoog buur yàqu sëñ Mouhamadou Lamine Gaye moo daan wax loolu kon doomi soxna day sanc waaye nag day nangoo liggéey mu nekk koo xam ne wet gi mu féete doy na sëkk di doomi Serigne Touba sëñ bi tàggatal ko boppam am na ci boroom xam-xam yi ñu mag ñi te newoon ci keppaaru Serigne Touba buñ lay misaal kan mooy euh, sëñ Abdullahi dañ lay wax cëram bu rëy ba mu amoon waaye kam doonoon suñ borom ci kawe yitteem ak kawe darajaam ak rëy maqaamam loola it la koy tegtale. mooy réyug mbiram sëriñ Mor Kayre bokkoon ci boroom xam-xam yoon wi nekkoon borom cër bu dana xad jaala fi jumlati saadaati wal kurama fikiri walam ara minhum min misaalika dafa wax ne wër naa sama xel daj na fu ne wër na fu ne waaye mosuma gis man yu maasilu ka mooy koo xam ne day nuroog sëñ Abdullahi dawal naa sama xel ci àdduna bi xool ku baax ku ne ma yebal fa samam xel mu raas ba mu daj waaye bi mu dellusee gisul ku mel ni sëñ Abdullahi ci gaa yu baax yi kon xat jaala fi jumlati saadaati wal kurama fikiri walam ara minhu man yumaathiluka gisuma ku mel ni yow jortu naa ne nag maqaamay góor yàlla yi séddoo nga ca cër boo xam ne mboolem lu waaye baax baax rëyub cër mi ngi ci soroon yow Cheikh Abdoulahi waaye mënulaa jot ci ak kawe ak tedd ngay jikko zannantu anna maqaamaat rijaali ida xiisat li yaxsal kullu duna maqaadka mu nekk koo xam ne it sëriñ Moussa Ka dañu ko portaleel ci lu gàtt ci melokaan wu rëy ba sëñ Mor Kayre waxaatee kenn koo xam ne mën naa mel ni sëñ Abdullahi borom dër bi amut ci ak jub ak baax kenn jotul ab dayoom daan na ko jagleel nañ ko nag ak don ndono yoo xam ne ko doon na ca sëriñ Touba nga xam ne melo yu Serigne Abdullahi mooy melo yu mu doon ci Serigne sëriñ Serigne Moussa ko wax ne allahu moo di jenn waay mooy jàpp doom def ko ni baay. kon da nga cey gëmee inna laa ala kulli shay'in qadir yafalu ma yasha fa'alu lima yurid yaxtasu bi rahmatihi man yasha maa tey yàlla na ku koy lijjanti sa problème yàlla daal la neex mu jël sëñ Abdullahi def ko ni mu def sëriñ bi kon léegi duutu maag yow duutu yàkke wax waaye yaa nga ca borom yafalu ma yasha te kooku de su ko wutal limite kon mooy jàpp doom def ko ni bàyyi moom buñ ko nuroo kon waaye yemu ca mu ne abdoo di bambam xarnu bi kon ab siècle la waaye nan la ko doone jamono ñëw na tey indi ko mooy delluwaay bi marjaan bi gën a rëy mooy sëñ Abdoulahi defe naa ko am ñaar fukki ak ñaar ñi gën a jàmbaare fi ne ci réew mi bu ñu leen den woo bu ñu fi fekkul ndono waxuma nag sa baay bàyyi koo fi nga jël lam yoroon donn ko wala sa bàyyi jiite woon entreprise bàyyi koo fi nga donn ko waaye fakk mu set wicc ci ñaar fukket ak ñaar nga taxawal ba mu ne léegi jafe na kon jëf la joo xam ne delluwaay la ku ne man koo del si xam ko bu baax a baax te la ca gën a yéeme mooy ni mën a liggéeyee la tàggate ay nit bañ nekk góor yàlla wax ngeen ko léegi sëñ Abdou Mbaye Kéré wali wuy yàlla xam li xew fii xam la xew fee boo ko nuyoo mu xam li sa xol di dox te bu liggéey jotee mu mën ca tool ya loolu la waxoon ci sëñ Abdou Karim Balla Fali sëñ Abdoulaye moo ko waxoon ne Abdou Karim de li góor yàlla yi yanu moom da koy boq te ko ko defar mooy sëñ Abdoulaye kon dafa defar aw nit tàggat leen bañ egg ci seen borom waaye boole di leen liggéey nag bañ mën a liggéey loola nag la ko mayoon mooy xam fa ñuy teg seen fa ñuy jaar dégg naa ci Baye Ara Jaxate bis Baye Ara Jatara mu ne Sëñ Abdoulaye dafa am bis ñu toog di ga diggante bi bi ñu tegee baraada bi diggante bi mel ni kuy gàkkantu bi ne ko jëyi kaas bi ne ko ah, daa mel ne da ngaa foroon bët mu ne ba ma xàmmee sama ndeyjoor beeg sama càmmoñ bi rek xaw moo fi moo fi nelawe kon moom xam na la ko taxoon a jóg ak lan fan la waroon a jëm bu ma saa jaxasoog sax nit koo xam ne dangaa ngaa setul day feeñ ci jëmmam ngir la muy mel. waaye ni meloon ci mën a bay mën a santaane bi liggéey la meloon ci dayaaleeg boroomam daana guddi lool baa mu naaj lool mu tabb ci biir àll bi buy dellusiwaat dënn bi day mel ni radiateur boo xam ne dafa sofe lu koy waral mu naajaat dayaale yi mu doon dayaale ak boroomam kon Cheikh Abdoulahi dafa nekkoon koo xam ne taxawaay bu rëy la amoon ci melokaanu mat ba meloon loolu it mooy koo xam ne euh, baatin ba raw na waahiram nga xam ne tey melaw yi mu la woon ci zahir baatin baa ko raw ndax defe naa nit yàlla ñi seere ci moom koo xam ne day fekk ku war a doon jigéen mu ñaan boroomam mu doon góor waaye sëñ Abdou yàllaay buur nee na nit ab diggam dana jege ba moo fee bàyyi ko boo demee ci sëñ Abdoulahi ñaan ñu toxal ab diggam kon loolu xamoon na kii nekkoon fii yëquloon ca lee mu nekkoon dara moo tax defe naa dañuy wax ne développement li ci jiitu mooy jàmm jàmm li ko jiitu mooy jikko azamat yi am yëpp ridaiya alamiya iqtisadiya crise yi am ci àdduna économie crise alimentaire crise yi am yépp crise bi gën a bon mooy jikko yàqu te bu jikko yàqoo defaru du am wax nañ ko léegi sëñ Abdoulahi danaan jox nit muy liggéey waaye boo ko dee jox addiyee te am bor mu sant la na la góor-góorlul ba mën a fay sa bor boobee te loolu mbindum sëñ Tuubaa la maa gis boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko bind maam Cerno borom daaru na ko Ibrahima ku am bor bu mu ma jox addiyee ndax isaab naa sama bopp ba set te doon sabab boobu isaab kenn mooy set naa wécc te bëgguma nit def tuuma taq taqee ma doon sabab boobu isaabam looloo tax léegi-léegi ma wax ko nit yi àdduna ñii ne leen lu mën a defaru forage boo ko joxee kenn nit mu lekk ko loolu du indi développement dañ koy def forage ñëpp bokk lu mën a defar aw yoon wala fajukaay boo ko joxee kenn nit mu lekk kenn ka la concerne bari waa na adversaire yu nit yi état yi am li ko waral benn waaye bañ liggéey nga favoriser ko ci kaw kuy kuy kuy liggéey jël la koy jox jox ko ko mu jéem koo raw ci wax ak jëf moom ma bañ la waaye lu ñëpp bokk ñëpp a ko bokk ku wopp dugg ci hôpital xam nga ne ñëpp ko bokk ku jaar ci APS bi jëm Touba xam ne ñëpp ko bokk waaye boo joxee benn waaye mu fooyu ku mënta am mere la kon lu ñëpp bokk lañ xam nañ koy def Cheikh Ibrahima nag moo tax mun a doxe ci mandu téef nga xam ne même kii liggéey du la liggéey rek jàppale surga wala mu jàppale ko moomul sa bopp wala mu di la noggutu dafa lay liggéey ba nopp orienté la teg la ci yoon woowu te dàquloon li mu doon liggéey noonu mu ci jàngalee adduna nga ñëw ñu ne la ceebub daaru rahmaan a ngi nii lépp bàyyi ko ci daaru rahmaan waaye ñaata kàngama jóge waat ci Daaru Rahman bu ñu jàpp ne rek dafa nekkoon benn opérateur économique boo xam ne dafa beru fee concentré bu ci lii waaye digganteem ak yàlla ñaata mbër la Cheikh Abdoulahi defar ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp seere nañ ci rub yàllam Cheikh Mamadou Moustapha daana ko wax keneen daana ko wax keneen daana ko wax moo tax mu mënoon a recevoir ay nit kon nit la ku mat ku complété koo xam ne jikko yu rafet yooyu la sàmmoon la sëñ Touba digle woon it ne bu jamono soppi ko dénk naa leen juróom jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo mu doy la léegi ñu ne Cheikh Abdoulahi bi mu tàmbalee liggéey amub dëkk war a gor ñu ne léegi kat ngir nga am jumtukaayu bi liggéey nooy def mu ne nañ taxañ dem Mbàkke jaayi ak rëy dañ luy tax la ngay def barkeel it tabbi tabbi na ca biir jëfam jooju moom Cheikh Abdoulaye moo tax Serigne Moussa Ka misaal na ko feneen ne a Abdoy xadiim min xadiimin ku yër baatin ba naa abdoo toog ca jal ba sëñ Moussa Ka nee na sëñ Abdoulahi boo ko xoolee gis ko te xam ko dëgg-dëgg nee na boo ko gisee da nga naan Serigne Touba nga gis mu ne Serigne Abdou nuroog bàyyam ca baatinin ku wér jàkkaam ne Bamba toog ca der ba ku mas a xam Serigne Touba gis ko nee na boo nee jàkk sëñ Abdoulahi fekk ko ca jàkk ja da nga naan sëñ Touba laa fekk ci jàkk ji mu toog ndax nañ melokaanoo te defe naa sëñ Touba tëjoo na ak sëñ Abdoulahi Njaaréem diggante boo xam ne yi matte day sam sëñ Abdoulaye di sam sëriñ Touba di matt seriñ bi di matt sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye laajal ko boppam na ko ndax yi may matt da nga ko dud yëg na ko ni nga koy yëgee ne laa koy yëgee waaye man bu ma wokkutoo damay yëg bànneexu xesante Ahmadu du lu may boromam kon loolu am na ci lu mu ko tërbiyee am na lu mu ko tàggat ba mu meloon noonu ci doxinu réew woowu mu amoon kon moo tax mu ne boo fekkee sëñ Abdoulaye ca jàkka ja da naan maa nga fekk sëriñ Touba ca jàkka ja mu toog waaye sëñ Abdou Ndour ak bàyyam ci zahiri ku yor néeg ba ne Bamba toog ca ca lal ba moo nuru Serigne tubaa boo ko saa fekk mu toog da nga naan Serigne Touba moo toog nuroo doxin nuroo waxin Bamba di Abdou Abdou di Bambam xarandu bi noonu mu meloon nag ba tax tey àdduna agsi foo xam ne ndax doomi soxna yi dañ leen di xeeb en général jàpp ne ñoom ñu am expérience te wax naa ne tey jii ci réewum Sénégal yéen ñiy xool ci économie ñaata lu mat juróomi téeméer wala juróom benn téeméeri dëkk yoo xam ne murid yu gor nañ ko dafa liggéey tey jii li Serigne Cheikhoum sëñ Saliou di bay boo ko doon xool boo demoon sëñ Sidi Abdoul Ahad la mu doon bay keneen ku ci nekk lam tollool waxuma la ñuy bay mais yor juróom téeméeri dong di leen dundal di leen wardu di leen dëkkal ba noppi te niy jàng te kenn du fay dara ana lu sëriñ si jëlee loolu ba mën a dundal taalibe yooyu kon sëriñ si dàq liggéey ci réew mi moo tax képp ku naan sëriñ si bu du tari bi joxuwutoon addee sëriñ si torox waxoo dëgg juum nga juum te loo xamul fu mu jëm taalibe yi kay ñoo waroon a seet ba xam yow mi yor sos tuur wut foo koy làq ki ne la ma làqal la ko yóbbul la ko ci yàlla loo ko war a fayaat neexale ko ko war a lijjanti ba noppi bañ a jàpp ne lam am yaa ko jox loolu liggéey la bu sax te barkeb sëñ Tuubaa bi du fi jógaa ah. barakati waasiatun wa baqiya baqaa mulku si hibaatu saafiya barke ni yàlla toll la sama barke toll daj penkook sowtu du fi jóg loolu jëf jure jooju moo koy maye taxawaay boobu la mu mel ni kon noonu Sëñ Abdoulahi meloon ci aw doxiin meloon ko ciy jëf tey jii boo xamutoon kan mooy Sëñ Abdoulahi xoola xalifaam bii fi jóge bu yàggul muy Serigne Cheikh Darou Rahman waxaguma la sëñ Modou Habib de waaye waxal sëñ Cheikh Darou Rahman buur yëbu ko baadoola yëbu ko diine jëm ko bokk gi jëm ko yoonu murit jëm ko boole noppeeg nu ngoo liggéey dégg ngeen ñu nettali ko ba tey sëñ gis naa dégg naa bi sëñ sëñ Ahmadou Rafa ay mu ne sëñ Cheikh dafa am ku mu wax ne ko ana ñu may jëwee lañ lañ may jëwee mu ne ko ah li ñu lay jëwee mooy da ngaa nay maa ngi jéglu ci baat bi mu ne ko déedéet nayu ma de damaa amul njaboot te bëgg li may liggéey ñu di ko dunde teg leen ciw yoon ba duñ tàllal loxo kenn kun ko war a tàllal loolu ana kat ngay xool ci njabootam yii nga gis ñu dem fu ñu warul dem kon loolu xam nañ ni ñu doon mel ci aw doxiin kon xoolal boobu xalaat la moon nu ngoo liggéey nu ngoo sonn waaye du yàq am na ñu mën a liggéey waaye dañoo mën a yàq suñ seex nag doyoon na misaal fii tey doo dégg mukk ñu ne la benn intervention bàyyikoo na fenn wala benn aide bàyyikoo na fenn ñëw fekk seen Cheikh Darou Rahman dund ci ngor ak jom ak jaamu yàlla ak diine ju sell ba tëdd ca péncam mee waaye sëñ Modou Habib mii ko wutu tey doy na ci misaalam nga xool ko kan mooy sëriñ Modou Habib mii defe naa dimbalewu nit sëñ Modou Habib am na bis man maa dem fekk ko ca sunna dugg ci otoom mu bokk ni mu yor dokk bi ngàbb ko ci moom laa gise koo xam ne garde yi garde banque yi ak ñii garde ci guddi gi ngay toggi reer di leen jox loolu ci moom laa ko gise ak dimbalewu nit ak nu ngi leen a tàggat ci yoonu baax kon yoon wi am na ay ay royteef am na ay nit ñu mat ci aw melokaanu dëgg ak melokaanu biir bu kenn jàpp ne jëmmi yoonu murit te ba àddunay tukki dafa am ko publicité woo ko ñor sëñ Cheikhoum sëñ Saliou ñaata jumaa la tabax kenn daa ma sa dégg mu ne maa ngi indi géré jumaa ñëw leen bind indi nanga wala ñëw leen indi nanga en 1927 bi fi sëñ Touba di bàyyi ko jëm njaareem jenn jumaa la sëñ Touba bàyyi ci àdduna muy jumaa yi njaareem 1927 Touba rek téeméeri juma ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yu julli ak jumaam na fa kum gërëm ku ne dëkk boo am jumaa nga fa kum defar ku nekk kasaaliku kon yoon waa ngi jëm ca kanam ci doxin ku la dàq jotul nag la Cheikh Abdou Lahad waxoon ku la dàq jotul lu mu for sànni la ki liggéeyu day jàpp ne kenn liggéeyut kenn demut da ngay xëy ñëw ci gaar bi wala nga ñëw ci orel bi fekk mu fajaru nga naan gaa ñi dañoo naaje yow fekk yegg nañ looloo dal ñii di wax waaye yoon waa nga ci kanam kon loolu doy na la ca des mooy wax Cheikh Abdou Lahad Mbacké Cheikh Abdou Lahad mën naa cee wax gaa ngi ni toog Cheikh Abdoul Ahad sëñ Abdoulahi Jaxate dafa wax ne Cheikh Abdoul Ahad acheikhu Abdoul Ahad taqdimuhu jamula waxtasahu llah bilfadl alladi kamula faxrul muridina man afda damasatuhu li ali walidin wanahu kasila sagub murid yi mooy Cheikh Abdoul Ahad mooy ki dépensé dundam gépp sacrifice lépp mooy Cheikh Abdoul Ahad ngeen njabootu Serigne Touba gi lislaam léegi nii Cheikh Abdoul Ahad wax na wax na ma 1989 85 dix mille tonnes Cheikh Abdoul Ahad ñor na ko ci gerte dix mille tonnes quatre-vingt-cinq boobu fan la réew mi tolloon loolu ndax ñiy nettali ci histoire xamaguñ nañ quatre-vingt-cinq ñu mën a bay dix mille ton Cheikh Abdoul Ahad bay boole ko pas-pas bu toll ni kat buy buy bay la muy wax mooy benn doom bu ci naree mooy liggéeyub Serigne tubaa bi yàlla bu mu sax loolu la Cheikh Maodo Fadal waxoon ci tool bu ma masam gerte gi may bay di ko liggéeyal Serigne Touba lu ca nar a bi yàlla na mel ni xorom kon ñoom dafa am xitma mooy liggéey yàlla taxul leen taxul a Cheikh Abdou na mooy koo xam na te loolu kilifa gu ne war a doxee Cheikh Abdoulaye Jaxate nee na Cheikh Abdou Lahad yu taabi al mar sa amdin wa yasfa an di xalatin wala yubali bi la si jahila nee na ku tay li nga def Cheikh Abdou topp la ku juum mu baal la ku ko réeré du la faale waaye bi bab li juw din yaxiidul mar ay sunaha maanaa la maaraama man yëpp xii la ma fa masala nday jooram ba moom mooy tabee di sottiku waamewu ngëneel wu dottiku ci képp ku ñëw fi moom nee na booy wër adduna di gis ku mel ni Cheikh Abdou jëlee ñu ci complexe yi xew fii di wut fooy làqatoog déedéet Cheikh Bilal bu ne asalaamaaleykum nga xam gi mu doon di citoyen modèle di jullit di muslim oqan dàqa jàng gën a raw nit ñi dàqa liggéey dafay investissement yoo xam ne ku ne gis na ko te jëmm yàllaa tax loolu melokaan woowu la mu ne bokk na ci Cheikh Abdul Ahad yum naahu bahrun rada yusraahu sayfu rada yurdil aadi wa yuxtil xebba ma amala nday joorub Sëñ Abdul Ahad géejug waame la càmmooñ baaraw si soppe bu ñëw laaj mu jox la ngëneel moom Cheikh Abdul Ahad Mbacké doy na ci Cheikh Abdou Lahad rek ci boo ko bëggoon a bakk si ñëpp la si Abdou Aziz si Dabakh xalif général Tidiane bi fi Cheikh Abdou jógee mu di ko martial xasida gu gudd la waaye ñetti bayit yi doy na ci koo xam ne bu doon ci diine mën nga dem nawle ndax yéen a bokk diine bokk réew mi nga bàyyi koo fi mu kañe la nii sëñ Abdoulahi Abdou Aziz si Dabakh bi fi sëñ Blaat da koy kañ ba yàgg mu ne ko ab madaxan aylamal ulama yaa ajmada naasi tural mufradan ka mufradan alami fa kam faqirin ka ayibin xalla saatukum wa aba yashkurukum kam ma xat kaana mun adima min baadi walidikum ya safiya siyami gàcce galaama la ko bàyyi ngaw tagg sa ginnaaw toppal mbuurum si Abdul Ahad ba mu toogee di jataay la ko jiitu doonu jataay bi sëñ Tuubaa ci ñaataat lañ doon sanc dëkk ak a nungoo liggéey gor réew mi fenn fu nekk nga fekk fa mu mel ko gàcce ngalaama fa nekk kenn nekku fi si bari waa na ku ñàkk jaaxle ñëw sa ëtt buy ñibbi day sant day sant day sant lu màbboon sa ginnaaw bàyyi yaa ko tabaxat kon loolu dellu si nañ ci am ay référence am ay modèle loolu liñ ci imposé nit ñi di leen ko wax mooy nañ bañ a nëbb baaxu si ñii ñu am te di leen ko waxtaane te bàyyi wëri bi ak wiiraas bi ak logg-loggal tey bu ne sëñ Abdoulaye sëñ Abo Abo mais boo nee sëñ Abo kuy bàyyam ñu ne sëñ Moustapha Xasaay kuy bàyyam nga ne sëñ Abdoulaye ak a jege ak a jege te loolu nawee nit bu dee ci diine ba jëf mën nga koo fekk fii waa kër sëñ Tuubaa ñi ne ku lañ di xaar ñuy génn naan la maa def nangam ak maa mel nangam waaye boo nga seet keneen ndax ñoom li ñuy def tax ñu di ko def fañ nekk kenn ko xam ne fañ ca nekk ci jëf jën war a nañ war a taxel kon mboolem ku ne ci réew mi te dégg xam na ne kilifa yi mel nii mën a defar nit yàlla ba noppi nu ngoo am na ñooñ buñ góorgóorloo ba seenub liggéey mat ñu seen diggante ak manqué am na ñooñ buñ góorgóorloo seen diggante ak yàlla mat seen diggante ak adduna manqué na ko fi ne bu góorgóorloo ba féetewoo ak jaamu yàlla mbiram dañ koy seere keneen ak koy seere waaye boole jaamu yàlla gu mat jàkka ja du manqué alxuraan ja du manqué te bu liggéey jotee nga liggéey moo tax lu lew lañ daan dundee tax ku ma sa tàllal see loxo na yaa rabbi yàlla wuyu la waaye léegi yonent bi alayhi salaam nee na tara rajulun yarfax yadi ila sama yaa rabbi yaa rabbi wa matamu xaraam wa malbasu xaraam wa xudiya bil xaraam fanaa yustajaabu la tàllal see loxo yàlla yàlla yàlla la nga lekk araam la nga naan araam lañ lay dundal araam ana fan ngay wuyoo léegi nee nañ fii léegi boo ñëwee taxaw procès yaa ngi taxaw mais tey ko sëñ Abdou Karim Mbacke mii di doomi sëñ Bachir mu sëñ Modou bu sa jeng taxaw dina ngoo liggéey mais yow boo laajoo jiw te mooy tool nag yow lan nga suyee ci réew mi laaju jiw te moo tool laaji machine amoo foo bay kon yaa ngi yeblu ko tax kay nungoo liggéey di daan dooleem ba doon kam doon am lam taxawee ñu bëgg a considérer ñëpp ci ne réew mi daal lu ñu liggéey léegi-léegi ñu ne sëriñ si loo leen jox ñu lekk ko du sëriñ sépp tam hôpital boo dem am na margo nii ñuy tuumaa sëriñ si la ñuy tuumaa ñu ne ci gouvernement di liggéey te duñ normal hôpital boo dem am na margo boo fa duggee nag seen ñuy puusum néew nga ne ku fi dugg dee am na ku fa dugg wér ah d' abord loolu mooy ñëpp la ñu war a gisee loolu loolu lépp rek ma la kon maa ngi leen di balwaq sëñ Abou maa ngi leen di jéggulu ngeen baal ma wasalaamualeykum wa rahmatullah jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international